hiya taybatun taabat li tiibi usuliha aouzu billahi mina sheytaani rajim asalaamualeykum mbokki jullit yi mbokki taalibe jaamal woote na alxuraanul karim woote na ci ndigalu El Hadji Mame Abdou Cissé di xalif général communauté islamique bu jaamal ak ay rakkam sëriñ Modou Man Ndiaye Cissé sëriñ Ousmane Cissé di borom dëkku jaamal imaam Alioune Diouf njabootu El Hadji Mapenda Cissé njabootu El Hadji njabootu El Hadji Alioune Fatou Cissé El Jarga ak waa yëpp ñooy ànd di yëgal mbokk jullit yëpp bés bu mag bi nga xam ne at mu jot dañu koy amal ren mu fas yéene doon samedi yam ak ñaari fan ci weeru février 2019 ca jaamal muy bés bi ñu jagleel seen wayjur bu tedd ba di El Hadji Abdoulaye Cissé Serigne Jaamal muy bés boo xam ne nag ñu ngi ko yëgal Serigne mbay Sy Mansour di xal général des Tidiane Serigne Mountakha Mbacké xal général de Mourides Serigne Cheikh Tidiane Niass bu Medina Baye ak Serigne Cheikh Tidiane Niass Oumayma bu Léona Niassène di ko yëgal waa Dimishq waa Daaru Salaam ak waa Arafat di ko yëgal tamit mbokku jullit yëpp rawatina son excellence le président Macky Sall programme ba nag ñi lañ ko tëralee àjjuma la ñu koy door bu 19h jotee maanaam bu ñu jullee timis ba noppi ak forum bu mag jëmale ko nag ci liggéeyu Serigne Jaamal su ko defee nag samedi bu 10h jotee ñu wàcc ay kaamil. 16 heures ñu amal cérémonie officielle 23 heures ba bët set nag ci la ñuy fanaan ci gàmm gi ak El Hadji Tafsir Sakho ci teewaayu nag xalif général bu piir di Serigne Mansour Cissé kon mbokk jullit yi bésu jaama la ngi noonu ñu di ko yëgal mbokk jullit yëpp le 2 février asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.